Senclic yéen ñi abonné gul gaaw leen gaaw activé cloche notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyi ko jaa ngeen jëf. simila. président africain yi day ah duñu tus termine yéene kaay tey nag laa leen di expliquer waaw suñu président yi la nan la ñuy caxa-caxatee kon suñu alal ci la africain dama ne la lu tolloog ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ci ay milliards la fekk ci loxol président wu Mauritanie woon di Mohamed Ould Aziz allahu akbar la ilaha illallah ah la ko wax tax na tubaab jaxate naan wax ma yow yaay président africain ban ma wax la sa alal nu mu toll dis a quel président africain tu es et je te dirai quelle est la ilaha illallah xoolal ma 2011 waaw dama ne la président Ben Ali bu Tunisie kon ba muy daanu fekk ci ay coffre forum day koppar goo xam ne saaga la ci askanam laa lay wax ni Tunisie saaga la tamit kon ci ñun africain yi la allahu akbar la ilaha la la wax la Mohamed Ould Abdel Aziz juróom benn fukk ak juróom ci bu góor fii ci Afrique ubbil réew mi quotidien yéen kaa gi ne xanaa xamoo leen ne opération wàllum xol le ah, amatul te centre cardiobédiatrique yoo moo la bu hôpital Fann bi waaw dama leen a xale yi kenn opéré tu leen ci wàllum xol maa la ko wax xale yi fi mu nekk nii dañuy dee en attendant opération yooyee di commencé waat allahu akbar la ilaha illallah yéen kaa gi ne waxuma la sax corona gi waaw bi nga xam ne kon mi ngi koy tardeel wàllum opération yooyee ah, waaye xoolal ma Sénégal ba mu daj amul fukk chirurgien jaar jàkk allahu akbar la ilaha illallah waay waay ana xëyu gone yi lée ana xëyu gone yaak Macky Sall critique yéene kaay ne xam nga wàllum naxaate tappale ak yoo xam ne yu defuwul ay daar waaw moom lañ fi ni mi ko de dama ne la ndaw yi nga xam ne maanaam moom la ñu war a jox nag wàllum financement yi lée xaalis bari bi ah keroog ba séminaire présidentiel ba jeexee ak léegi ni lée ñoom xale yooyee amul benn kër di wàllum structure xam ne daal dinañ koy taxawal ni lée ngir nag ñu fay dem di jële ay xibaar ak li nu mel de amul te gis nga nag lu tollu junni ak juróomi ci ay ndaw dañ ñu ñàkk nag seenu liggéey ci wàllum exploitation wu silex ba nekk ca ICS këlay Omar Faye leeral askan wi ci évidence yéene kaay gis nga Alassane Diallo mi directeur général u ICS day kooku moom moo nar a daaneel Macky Sall daar daar balaa 2024 waaw parce que xoolal ma ñi nga xam ne ñooy exploitant ya nekk kon te silex googe la ñuy naqarlu impôt 1000 francs ñaari téeméer yi nga xam ne kon ñu leen koy laaj ba pare di ko jox nag indien yi yow xoolal ma alalu ay jàmbur ji ay yenge allahu akbar la ilaha illallah waa lii lan la libération yéene kaay ne ay kon siti day waaw gis nga xeer bu njëkk ba bañ ko tegee ak léegi ni ne xeer bu njëkk boobee moom daa sax ci juróom fukk ak juróomi hectare cinquante cinq hectares yoo xam ni kon moom leen joxe woon promoteur ba day waaw moo ni dane woon nag ñetti weer yu njëkk ci atuk 2021 bi lée liggéey ba dana door France daal di xidil laa la wax Ibrahima Niang forum civil bu waaw nee na du machine du brique du ouvrier du dara day nag léegi leer na termine yéene kaay ne élection locale yi waaw président Macky Sall daal dinay dëggal nag mbir ma jàpp na dat de dama ne la ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier 2022 mooy élection locale yo dafa jot de barki yonent bi laaste layam layamal gée kañ la suspense bi kañ la dat wa kañ la loolee moom léegi jeex na jàpp lañ ne élection locale yooyee Macky Sall jàpp na ko dimanche la ñaar fukki fan ak ñett ci ba bëggoon defa a football kay le quotidien yéene kaay ne dëgg la parce que

caaroy kaw day mujj dem biir géejawaay gële fa la jëm de waaw waaw te Parcelles Assainies ke boo sàgganee itam danañ ko dugal biir géejawaay de waaw waaw le Témoin yéene kaay ne daggaatu département wu Tëngéej boobee Omar Gueye day séddale bukki la ko def de bii bukki bii njuur bii sàmba bii doomu bukki bii Omar bii Gueye bii doomu Omar moo taxil taal na dëkk ba parce que mbaam waaw jaar ca kër loo gële ak jaxaay kunun dama ne la askan wa ca kon a dara suuf si lée lu dul mbirum élection moo taxit gox ba yëngu na yéeni kaay Mamadou Omar Ndiaye gi gis nga dëkk bi mi mu yëngoo taay passé keeru mars waaw Pape Gorgui Ndong day nee na man président ak conseiller yi nekk ca palais balaa mere Pape Gorgui Ndong ne waaw parce que ñi nga xam ne ñoom ñoo woon président Macky Sall day li xewoon noonu événement yi looy njéeg dama ne ñoom ñoo njag laa wax man nag sama kër buñ ko attaqué Ousmane Sonko du fanaan këram de ay waay jile ay waay jile Macky Sall nee ko booloo leen ngeen liggéey nekk nii tribune yéene kaa ne Amadou Jara day mi dem APR waaw Amadou Jara daal xam naa ne la mu wàcc woon tifli ko lekkaat na ko de mar d'Italie dama ne dem na APR laa la wax waaye mbir mi nag du yomb ci moom de déedéet parce que Maguette Dia waaw nee na ñi d'accord nañ mu ñëw de waaye na ko leer na dootul nekk te Pikine Nord gii maire jamais parce que nag dañoo am ay ambition Adja Ngoone Njaay ne dëgg la ñin suñu liggéey ñin waa APR Pikine Nord mooy jël place environnementale waaw conseiller affaire yo ña ngay dal ca kaw Idrissa Seck nag laa la wax parce waa affaire yi nekk ca conseil économique googee nee nañ Idrissa Seck respecté wu leen wéegu leen considération zéro Idrissa Seck daal ba ba léegi ñaar ña xam ne kon ñoom la fa Mimi Touré indi woon mu leen football leen tegee leen ne faalewul waa APR laa la wax ñoom Bassirou Sey day APR Thiès waaw ñoom day nee nañu mburoog du ci dal tey te du ci dal d'accorduñ ci ñëw Idrissa Seck laa la wax ñëw sursaane kan mooy remplacer Samba Sall juge ba doyen des waaw Macky Sall de léegi neex naqari dana convoqué conseil supérieur de la magistrature Macky Sall est du mujj def sa forcing nag tànn ko ko wutu direct news de solidarité day ci askan wi nga xam ne guerre bi laal na leen Doro Gaye day PDG dimbali na lu tolloo téeméer ak ñaar fukk ci ay njaboot ca Casamance dama ne Doro Gaye ginnaaw tournée yi nga xam ne kon doon na ko def ca